di leen bëggee bu baax a baax yéen internet ci Leewtoo TV ah yéen ñuy topp saa su ne international national ñoom dama leen di bëggee bu baax a baax dañoo toog ak kenn ci axlu làmb waaye suñu papa suñu consultant waaye staff bu Leewtoo TV di Père Max Mbargane mu nuyu ko bàyyi ko mu nuyu internet yi Père maa ngi lay nuyu. waaw euh, di la fay euh, di kontaan ci euh, ñi nga xam ne ñoo safa site bu mag boobu di Leewtoo nga xam ne ñu dëgmal événement bu mag xam naa sababu waxtaan wi moom lay doon. mais di kontaan ci ñoom bu baax di leen kontaane naan ñàkk ko seetaan dara wóoru ci kon seetaan ko wóor na. kon seetaan ko wóor na waaye laataa ñu ñëw ci combat le 19 dañuy dellu ginnaaw tuuti ci le 5 décembre diggante Papa Sow ak Siteu Peng Max bi combat bi yàqu noonu lan nga njëkk a yëg. waaw li ma yëg mooy am ci lu métti rek xam nga combat boo préparé deux ans trois mois boo sañoon du jeexee noonu ñu daj ci coono yu méttee métti nag premier report bi demoon desoon na dix-huit jours. Covid bi dugg ci réew mi ñu reporté combat bi muy cas de force majeure ñu jàppaat ko une deuxième ba mu des cinq jours euh, ñu reporté waat ko mais li ma ci gën a métti sax mooy ci report yëpp amul dara buñ jox ñaari acteurs yi muy Papa Sow Siteu ak 18 mbër yi doon bëre yëkkati nañ 21 millions. séddale ko promoteurs yi nga xamante ne nii dañoo régler seen combat wane dañoo impacté ci ci Covid bi mais acteur principal yi muy mbër joxuñu leen dara te ñoom lañ leen joxoon fare nañ ko promoteur bi dañ koo dencal rek xaalisam xëy na mënoon na ci liggéey leneen victime la mais mbër yi lañu waroon a gën a gën a dédom jëkk a joxuñu leen dara ñu jàppaat ko joxuñu leen dara te suñ promoteur joxoon nañ ko cin millions ndax moo ci gënoon a rëy combat ñi ci des ñu jox leen ku ne 2 millions ñu jàppaat ko ba ci keroog dimanche bi ñu génn ñu gis na mu jeexee euh, moo tax ma déglu ñu naan xëy na dinañ mën a tëggaat combat bi loolu wax ju yàqu la promoteur mënul jaay ay billets sponsor yi wuy si ko ba ba site bi làmb ji jeexee blouson sponsor la sol dem def déclaration. amateur kay moo waroon kaas ne nañ ma delloo sama xaalis mais xalaat naan combat fi dese loolu xel sax da koo nanguwul xel nanguwu ko xel nanguwul loolu Pala Mbengue tëgg na fi làmb yoof biñ dugg see ba mbër yëpp dugg vingt lutteurs yëpp mu am histoire làmb ji tas benn combat amul le CNG dafa fay vingt lutteurs yëpp ndax mbër bu xasee dugg remplir na contrat loolu lu ma doon euh, lancé la rek ndax damay dégg ñu naan kaawu nees ak Balla Gaye 2 loolu affaire bu lu fi jaaroon la te xam nañ li waraloon loolu mais loolu wax bu yàqu la ki waroon a kaas amateur la mais du CNG xanaa du mooy téye xaalisu mbër yi wala ñu delloo promoteur bi xaalisu amateur yi ak te ba pare mbëri yi nañ seen contrat loolu xel nangu ko feey nag ni mu amee ku ne xam na ko dëgg day boot seedeem bu ñu ne Papa Sow la géwél bu ànd ak Siteu xaañ fan lañ ko xaañee ak lu mu def bañ xaañ ko ñaari dëgg mënul am mënoo jël mbuus jox ko koy àndal xamuñ lu ne ci mbuus bi nga daw song ci mi kaay ñu tere la ngir raison de sécurité nga jëlal mbuus bi sa bopp daw dem yo acteur bi yor sang sàllu naawaan dem di dóori noo kooku moo tooñ ak lu mënti am dëkk bi nag daa doy waar da ngay gis ko tooñ ba pare bëgg am dëgg ci kaw ki nga tooñ mais dëgg moom du tege mukk ci kaw euh, euh, ñàkk dëgg du tege mukk ci kaw dëgg loolu xel nangoo ko li ñu jàpp daal ak li am làmb ja noonu mu jeexee neexuñu mais ñun suñ mbër ba mu dalee bëre ba léegi c'est la première fois mu ñëw ci làmb yor comportement boo xam ne ñun kontaan nañ ci ndax ñëpp dañ ko daan reproché Siteu bu dugg see day daw rek du toog benn place fu lu ne mu dugg fa du def yëfi mag tey mu dugg si toog ba tuus jot mu jóg tuus ba mu tuusee dem toog ba ñu woo ko ci géew bi comportement bi mu indi dimanche ñun dañ koy rafetlu. indi benn changement bu radical indi cosaan indi aada indi dal ak tey lan moo waral loolu yaa ko conseillé wala jour boobu lamb ji moo tolloon noonu. non du ma ne man rek day mel ni man rek maa seq mbër mi mais li ma la mën a waatal mooy mboolem ku ko bëgg. ne ci ginnaaw mbokk ci staff bi taxawaay bi Siteu taxaw dimanche rafetlu nga ko ñëw na jël dal toog ci mikaayam mbër day toog ci mikaay toog di gérer mais di daw rek dugg si làmb ak 16h wala 17h di daw ba 19h loolu xel nanguwu ko te loolu dañ ko doon euh, ñaaw dañ ko dañ ko ko doon reproché mais gis nañ mu yor taxawaay bu rafet ba incident yi am sax dañ ko ko nettali moom xamul nu mu demee waaw. mu ne nii nag coolu ne kur ñu ne làmb day am ñi naan du am ñi naan promoteur day tëggaat combat bi ñi naan CNG woon leen lan mooy décision bu final bi. décision bi ñi ngi xaar xëy na man li tax ma indi sax procès verbal bi laay jël si nii pour xool lan moo xew mais lépp ba mu des bëriwaat ko loolu moom jeex na moom. non non pas pas soo tourné nañ ko. bu ko CNG forcé nag. bu bu ñu ko forcé duñ ko bëree CNG moomuñu juruñu jënduñu. passe boobu tourné nañ ko remplir nañ suñ contrat. for ci wéewu bay kii di mu ne bu fekkee CNG da koo sanctionné moom day bàyyi làmb est-ce que ànd nga ci affaire boobu. waaw loolu euh, foofu la toll rek mais Siteu moomul boppam mais jaadu na nag parce que ñu la tooñee forcé la war nga am boobu xalaat xel nangu ko te buñ ko tegul ci yoon dañ koo tooñ xëy na image Siteu xëy na da leen di déranger mais ku ne xam ne ne mënoo jël ki tooñ joxoo ko tooñ jël kin tooñ nga bëgg ko àtte lu neex loolu xel nangu ko ñun xaaruñu loolu. te dëkk bi nag dëkk yoon la. fu ne nii nag loolu buñ ci jàllee dañoo jëm ci événement bu mag muy le 19 décembre. Père Max mën nañ ne combat boobu bu taxawee yàlla ak sa loxo ci la jaar naka ngeen di koy waajale waaw bàyyiwuñu dara def nañ face to face yu bëri mu apporté dayo mbëri tool noonu ndax mbooloo mi la ni mi ñuy drainer yaakaar bi ñu am ci seen écurie yi seen écurie yi am ko ci ñoom dayoo combat bee toll noonu ndax Tapha daan na sos daan guy gi daan Yékini Junior te ba léegi bool bool yi mënuñu ko pardonné jël bi ko Ama Baldé daan te Ama Baldé ànd ak booy ñaa gis nga niñ mel ay frère lañu moo waral ñoom nanguñ sax ku leen jege ndax su ma juumul face to face bi amoon ci diggante Ama Baldé ak Tapha ñu defoon ko fële ci euh, parc Hann dañ ne dañ ko faa fekk xëpp ko gàllaaj moo tax ñu benn yoon kii jege ko dara lu ko jege ci signature yi kon Tapha Tine looloo tax mu fonk combat bi te bool bool yi dañoo rangé wu ci ginnaaw de cent pour cent bawal ne ko nag indil nga ñu lu ne bëre nga ak ay roi des arènes mais ba léegi titre roi des arènes dugg duggagul bawal te yow lañ ci yow lañ ko yaakaar ndax yaay leader bi moo tax mbëri bool bool yëpp ak mbokkam yëpp rangé wu ci ginnaawam booy ñaa nag jël tafaatin ñu ne diis na ci moom mu teg ci Balla Gaye 2 ñu ne ko yow xanaa da ngaa respecté wul Tapha Tine mu ne su ma sañoon bu ma jisoon beneen avance jël ndax nit ki xëy dem ci biroom di liggéey ñun saawuñ xëy dañuy na ji te dimanche boo toog bëree woo ko yaa ngi perte kon moo lay won ne te nag bu gañee combat ak Tapha dina ko motiver. diggam ak Balla Gaye mais bu ñàkkee combat ak Balla Gaye bu ñàkkee combat ak Tapha di préparer ji Balla Gaye combat bu métti lay bëre contre Balla Gaye moo la waral combat bi am enjeu booy Niang day bëgg am ndam ci Tapha pour mën a affronter ji Balla Gaye 2 Tapha Tine day day bëgg a daan Boy Niang pour dem jëli jëli jëli continuer carrière am ndax bool bool yi liñ ko laaj mooy indil ñu roi des arènes. ci loolu nag kii di Boy Niang moom mi teg nga xam dafa jël ñaari avance. mu war a bëri ki nga xam mooy Tapha Tine day olof ñaay dafa ne ndox du jéggi pax loolu day nekk pression ci moom wala day nekk poids de plus ci moom. waa mais xam nga loolu ku nekk jàngat bi mu koy jàngatee ñenn ñi dañ naan ñaari mbër lay préparé ndoo kon mën naa diis ñeneen ñi ne avantage lay doon ndax moment bi nga jëlee combat bi mu yàgg ak ni mu yàggee ñu joxaat na beneen avance da lay gën a yokk ay moyens pour gën a waajal combat bi nga dëgmal kon kon jàngat yi ku nekk jàngat bi nga ciy def waaw. booy ñaa nag day seet bi ci gën rek mu mu mu mu jël ko ah, ñii dañ naan day diis ñii naan de plus la moment bi avance jeex ñu dolli ko beneen xaalis waaw. ci loolu nag démb ki nga xam ne mooy Tapha Tine woote fee ci Ibamar open press bool bool yëpp wuyu ko macha allah état de forme am mu ngi ko gisee ban impression nga am. waa Tapha Tine ku ne xam na ne ak ni ma xamee ci moom jom foog ma indi doole ndax du bëgg booy ñaa daan ko Ama Baldé daan ko du ko bëgg. moo tax day indi doole te ko fonk combat bi la. ba lenn rek laay wax dañoo jël xeex bi favori ko tafaati fa fare ko tafaati nañ tey booy ñaa ko mën a xeex la ndax li ëpp ci ñi muy xeexal yaay ëpp looy sànni mais korpe ñoom mooy gën a dal ndax bul bul fàtte ne bi mu doonee minime daana def daana box danaan def box par vendredi di ci Ibamar kon boxeur la gis nga diggam ak guy gi gis nga diggam ak Sa kon moo lay na kat la kon ñoom ñaar ñëpp mën a xeex bëre bi it buñ ko farale booy ñaa tafaatin ko gis ni mu def booy sëy gis ni mu def Yékini junior da ngay xam ne daa mën a bëre loolu mbir la moo xamante ne damay bëgg damay bëgg ñoom ñu bàyyi ko xel xam ne tafaatin mën naa bëre mën naa xeex booy ñaa mën naa bëre mën naa xeex buñ jël avantage di ko ci farale kenn te wax naa wax naa leen li tax mën ne ñoom ñaar mën nañoo bëre mën nañoo xeex leen rek laay mën a assurer combat bi ko la ko yombalal moo la ko xañ combat bi mënul yomb ci booy Niang mënul yomb ci Tapha Tine combat bu métti lañ jëm ñoom ñaar. ñu jàpp ne ñaa Niang curux curux la am pièce la mën a def nga ne mooy Tapha Tine pour daan ko loo gisee. non moom daa mën a bëri day bëri ci bopp day bëri ci xel day bëri ci bopp mais Tapha Tine dina xam loolu dina ko waajal mais gaawaayam comme ci mënta daan amul lenn rek laay wax Boy Niang bu mu nangu combat bi yàgg combat bi yàgg. jàppante xeex bu yàgg comme combat bu yàgg comme combat bu yàgg bi mu bëree la de su ma koy doon danaa ko conseil bu mu bëree combat bu yàggee noonu ak Tapha Tine Tapha Tine nit na sóor gaawaayu booy ñaa ndax Boy Niang rapidité comme ci mënta daan amul combat bi daal li ma mën a assuré mooy ku juum daanu du yomb. Père Max loolu ci li ñuy jeexale nu ma jeex mais question yu mujj yi lay nekk nga nekk organisateur waaye nga nekk biir CNG naka ngeen di waajalee ci biir enceinte bi ndax dégg naa jël nañ ay bees tàkk. waa ñu ngi xaar xam naa dinañ woote réunion ci semaine bi ñu xool yan dogal mais xam naa ne daal lu mënti am bu jaadoo dinañ ko nangu mais bu jaaduwul dañuy indiwaat suñu xalaat nag ndax làmb yi fi ñëpp la CNG du ñoom rek ñoo moom làmb dañoo yor xalaat ñu ñun ñu yor xalaat mais daal bu ñëwee danañ danañ ñu wax li ñu nas ñu nit ñu wax leen li ñu xalaat buñ ci àndee ànd ci buñ ci àndul ne lii nas ngeen ko mais ànduñu buñ sañoon geen doxalee nii ndax làmb yi fi ñëpp la nag. waaw. Père Maxime suñu waxtaan ci xam-xamam ci xam-xamamu làmbam fii la toog duñ fi jógee waaye dañ koy tënk rek Père Maxime lan ngay tàggatoo ba beneen ñu gën a xuus waxtaan bi incha allah. di jox ñëpp rendez naan violence bi ma gis ci arène bi dañ ko teg ci suuf ku ne xam ne réew mi moo am violence mais kenn soxlawu ko waaw kenn soxlawu ko yàlla yàlla def ci réew mi jàmm jërëjëf. ayca Père Max la woon di ko di ko jaajëfeel bu baax